ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu ne boole ci ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien kon mbokk yi ñu wëyal ci li ñu doon wax rek jéem a recadré waat sunu bopp ci li war a doon ab tekki li war a doon réussite ci jullit bi nga xam ne bu ko société bi tegee rek ci réussite matérielle walla ci alal wàcc nañ yoon wa ba ni ma ko waxee sax fi nga xam ne euh, lu spirituel moo moo fa war a doon yitte waaye du doon lu matériel sax léeg-léeg dana ko laal ni ñu ko waxee ci bari na ñoo xam ne bu ñuy bu ñuy yéem ka ñuy tuddee sëriñ loola lay doon fa mu dëkk walla kër yam oto ya mu am wala wooteem ba na mu mel wala màggalam nga wala gàmm nga ni ki noonu yi tamit ñenn ci ñi ñuy tuddee sëriñ loolu li ma ci jublu mooy ña ña ña ña ko tuddoo te melokaan wi sax ci ñoom génn nañ ca waaye nag ña ñu koy tuddee ña ñuy taf étiquette ba te mën na am dëgg-dëgg matul ci ñoom nga xam ne tey kii day taalibe bu am ngërëmal sëriñ bi la bu am sa ngërëm yow léeg-léeg du doon ka nga xam ne ba muy gone la la ko waajuram joxoon mën na am sax yaa waajuram yéen a màggandoo nekkandoo woon ci daara ja ka nga xam ne mi ngi ci kër gi guddeeg bëccëg lu ne mu di ko fi daj waaye am amam tolluwul noona bu beneen waay jóge fële ak alal kooka moom bu ñëwee mën na am ka ñuy tuddee sëriñ fatuwut waaye mën na am bu dee keneen ka moom day fekk ne fatu na mënu koo gis kooka nga xam ne mën naa defal sëriñ bi lu rëy ci àddina ci alal moo xam kër walla oto bu rëy bu yéeme nga xam ne yitte jum am sëriñ bi mooy ñëwal boppam ah, dafa am tudd dafa am kum wàññile walla moom moo wàññeeku ñu war koo taxawu moom mooy ñëwal boppam bu ko soxla woon guddi sax dana ñëw waaye kii nga xam ne nag léppam kër gi la yitteem jëpp coono bu ne mu dëkk fi daj waaye bu dee loolu li àddina moom amu ko xëy naa mën naa bañ a am loola loolu nag dama ko dama ko wax ci ñi nga xam ne melokaan wi xëy na newul ci ñoom kon saa su ne rek mën nañoo xoolaat jëf yi jéem koo tegaat fa mu war a tege kon ñu ñun nekkoon ci yenn ci tomb yoo xam ne dana dimbale jullit bi ba mu am réussite réussite maam tekki ba nga xam ne mooy tekki dëgg dina ko ca dimbale loola mooy objectif yi mu am ci àddina ak fu mu mën a doon walla lu ko mën a motiver na fexe ba mu méngoo ak diine lum ci doon daal na fexe ba ba mu tegee fi diine bëgg maanaam li nit kiy wuti moo xam alal la moo xam am jàng la moo xam siiw daf koo dab na fexe nag ba ba mu fekk ko mu tege ci istiqaama na tege ci an nahjul qawim na tege ci yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëdd te jële ko ci suñu boroom loola bu amee loo mën a am ci yi àddina baax na dana la dimbale loo mën a am ci nomba tànk dina la dimbale te lu lay jëriñ lay doon tey ak ëllëg mu mel ne kon mën ngaa am réussite ci domaine yooyu ñu wax commerçant nga bu daan bu daan taaba taaba rek léegi dey yaay grossiste bi fi gën a mag walla conteneur yu bari ngay wàccee lu am solo la waaye na na fekk rek na yaa ngi tege ci ci yoon wi na fekk ne fa nga war a tegee fa nga tege cim jàng nga nekk yaa jiitu docteur nangam nga agrégation sàngam nga am bokk nga ci académie sàngam mën naa baax waaye na fekk rek ne na nga tege ci yoon wa na nga tege ci yoon wu jub wi na nga topp ki la suñ borom topploo muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu loolu amee lépp loo mën a làq ci réussite yooyu rek mën na laa dimbale nga am ci ngërëmal suñ borom mën na laa dimbale nga gën cee jege suñu borom subhanahu wa taala te loolu mooy li nga xam ne moo lay jëriñ kon réussite àddina boobu daal wala réussite ci mbiri àddina bala muy am njëriñ rek dafa fekk ne lépp ngëm moo ko lal topp yoon wi nga xam ne moom la suñ borom rëdd beneen tomb mooy lépp loo mën a am ci yooya ñu wax am nga ndomb tànk am nga alal dénk nañ la lu am solo ci réew mi dénk nañ la portefeuille yu am solo wala département yu am solo wala sax ñu dénk la réew mi na fekk ne bu dee jullit nga melokaan woowa na ca nekk ci yow bu melokaan woowu jiitoo kees gi ñu la dénk ne mbooloo moom ko kees booba doo ko këpp doo ko jëfandikoo doo détourner alalu mbooloo yooyu ñuy tuddee malversation gi mel noona bu boobaa doo ca tàbbi ndax xam nga ni lii lu mu rëy rëy danga ko fi bàyyi dem rendre compte nag ki nga xam ne moom nga war a wéetal ba defee ne yow rekk la bind wa kulluhum aatihi yowma alqiyaamati fardaa kon loolu bu jiitoo ci jullit bi nomb tànk bu mu mën a am rek lu am solo sax lay doon ndax dana ca bàyyi xel yàlla dina ca liggéeyal diine dana ci jëriñ nit ñi mu bokk ci tomb yi nga xam ne war nañ ko bàyyi xel ngir ñu xam lan mooy dëgg-dëgg réussite mooy ñu xam ne safaanu réussite mooy échec bu àddina nekkul forcément échec ci suñu borom ëllëg yowmal xiyaam loolu war na tax ba jullit bi projet bu mu yëkkati mu échec mu xool ci ne mu xool diggam ak échec gu ëllëg nu mu demee bu fekkee ne projet ba yàlla rek a taxoon yéene ju sell a tax donte échec na ci dana nekk réussit ngir moom ëllëg mbokk yi kon tomb yooyu sax des na waaye bala ñu koy jeexal ñu jox ci misaal yii mooy lépp lu mën a doon nga am kawe ci wàllu matériel sa digg ak sa boroom nga am yitte ju kawe wa ali himmataka fil umuuri dunya wa oxra toxza bil ujuuri nee na daal bu fekkee ne sa yitte moom kaweel nga ko ci mbir yi àddina ak àllaaxira bu boobaa da nga am payug suñu boroom nga xam ne liy tënk li la war a motiver ci lépp looy dugg dañ ciy jël rek misaal li ci sëriñ bi joxe ci xam-xam te xam ngeen ne xam-xam moo war a lal lépp ngir nit ka am ca la gën nga xam ne bu bu bu ko nit ki di di di di bàyyi xel rek ci lu mën a doon dana ko dimbale mooy li mu waxoon ne booy sàkku xam-xam daal na nga am ñeenti mu nekk lu la motiver wal taqsidu arbaatan inda ibtida taallumin li kay tafuusa bil ilaa nee na daal bu fekkee ne bëgg ngaa am la nga bëgg dëgg-dëgg lu lay jëriñ ci suñ borom na nga am ñeenti yi booy sàkku xam-xam na nga am motivation yi bi ci njëkk mooy alxuruju min dalaali nga génn ci réer kon loolu moo la war a motive agrégation boo ca mën a am nag mën na laa jëriñ bu dee looloo la motiver bi ci des mooy nga jëriñ mbindeefu suñ borom yi wasaani nafu xalqi zil jalaali ñetteel ba nga dundal xam-xam al ixyaau lil ulumi ñeenteel ba nag mooy la nga xam nga jëfee ko moo lay dimbale nga xam ne kon bari na lu ñu jàppee objectif ci àddina jum nañ buñ ko jàppewul moyen ngir am ngërëmal suñu borom rek jum nañ la gën a bari ci alal namba tànk ba gën a kawe rang ran sociale ba gën a kawe alal ja gën a bari lépp objectif la war a doon ngir ngërëmal suñu borom bu demee wut noona rek dafa mel ne kon euh, wàcc nañu yoon wa kon bokk na ci critères yi nga xam ne jullit bi wala wala wala wala repère yi mu war a am buy wut réussite maay mu xam ne lépp lu mën a nekk réussite ci bëtu nit ñi lu nit ñi mën a tuddee tekki te demewul noonu ci suñu boroom loola amul solo misaal bi ñu ciy joxe tey bu fekkoon ne doomu aadama bi alal lay wut mu tabax barabu fooyukaay fu ay góor ki jigéen di daje guddi di fa fecc ci melokaan yeñu cay mel col gañu fay sol di fa consommer sàngara ak ya suñu boroom di tere mu di ko jural alal ju bari alal ju bari lool ba mujj nekk millionaire ay bien matériel am bari lool bu fekkee loolu moo doon réussite am loola day échec échec ba gën a mag la ci kanamu suñu borom subhanahu wa yemul sax ci échec waaye alkande la loolu alkande la kon ñu xool ñu xoolaat bu baax ni ma ko waxee fi ñuy li ñuy tuddee réussite ak fi ñu koy teg moo tax ba li ñuy jëfandikoo ci àddina rek mooy li ñu war a may li ñu war a yóbbaloo ngir suñu borom wabtaxi fii ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min loo am fàggu ci ëllëg sa alaxira donte doo fàtte sa cër ci àddina moo tax mu doon wax ne fa kullu ma akunu zantifaa'i bihi min ad-dunya la dantifaa'i fa huwa yakunu zaadan lil jinaan baada al jihaadi wal buyu'i zamtinaan nee na àddina jii day lépp lu mu jëfandikoo rek day fekk ne lu koy jëriñ la ëllëg day fekk ne lum mën a yóbbaloo la ëllëg kon xëy na ci jeexital ñu xoolaat bu baax li ñuy tuddee ak tekki li ñuy tuddee réussite li ñuy motive ñu xool considération bi ñuy jox bi ñuy jox nit ñi te mu bañ a tege rekk ci poos bu diis alal ju bari joo xam ne ni ma ko waxee dañuy gëmm bët fu mu jóge dañuy gëmm bët noo ko amee waaye ginnaaw am nga ko rek te xëy na am ñu ca teg seen bët xëy na am ñu jàpp ne mën nañ caa jëriñu ak ak lu mën a doon rek dañuy jàpp ne tekki na kon loolu gisin la boo xam ne bu mat a joyanti la kon ñu taxawaat xool fi ñu toll xool suñu bopp xam ne jaam bi war nay farlu def lu mën ngir atteindre ay objectif am def lu mën ngir tekki waaye tekki ga dëgg-dëgg daal na bokk ak tekki gi nga xam ne moom la suñu boroom tudd na mooy ak tekki te ñu xam ne bariwaana looy kër-këri ngir jot ca bariwaana daraja joo xam ne jàpp nga ne fii ak amoo ko tekkiwoo woo bariwaana dëkk boo xam ne jàpp nga ne boo fa demut rekk tekki te yooya ñu lim benn bu ci ne mën naa bañ am li nga xam ne nag wóor na la ne moom dana am yii jaar ci nit ki li muy jaar ci dundam étape yi muy jaar xew-xew yi muy jàll plan de carrière bi muy teg yi ko war a gaar ci dundam lu ci ne mën naa am mën naa bañ a am bu mu la yàqal mukk nag li nga xam ne faw dafay am li nga xam ne li gën a wóor ci lu mën a arrivé nit ki bokk na ca mooy àddina dii danga fi jóge danga faatu danga nga suñu boroom lépp loo doon wut nit am na am na ko fi ëppale la ko ba ko fi dem wuy ji yàlla yooyu boo ko jiitalee nag kon xëy na dana la dimbale ba nga am réussite bi tax ñuy wax wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam